bi de presse. dañ ci ànd ak El Hadji Ahmed Aïdara. bisimilah lu ëpp nag tuuru. trop c'est trop tur bi ñu ne kaane. ginnaaw nag opposition bi day bañ a sampale ndem nag maanaam kon kilifa yi day. waaw nee na dañoo amal nag seen dox ñaxtu boobu. ci buntu ministère du intérieur. waaw ñoo opposition ba day démb. jàkkaarloo nañ nag ak police bi nga xam ne daal. nee nañ leen lii du fi amee. te rond point Sandaga googe ma ne la ay jàmmaarloo yu tar moo fa amoon de maa la ko wax waaye dëkk déri démb de danoo génne nag ay matériels yu doy doy laa la wax ngir benn attroupement kon du am nag maanaam kon ca digg Ndakaaru Njaay jël jóg googee la ko tijjee ne kaa ne ma ne la opposition bi dee dal bi nga xam ne ne kaanaam dal nañ ko ci kawam ni la ah, ñoom front de résistance ba ma ne la police ba ca boppam kon daal dinay freiné ne kon opposition ba de am na ci ay leaders yoo xam ne kon teg nañ leen loxo de yóbbu leen na ca commissariat sant ma ne la Mamadou Diop Decroix ca la bokk Déthié Fall ca la bokk Omar Sarr ca la bokk Thierno Alassane Sall ca la bokk terminé yéene kaay ne boole ca Thierno Bocoum ak Awa Niang Oustaz Sadio Kanouté ak Seyda Mbédou ma ne la opposition bi day waaw nee nañu day lañu gën a taxaw ngir candidature Khalifa Sall bi lay ak Karim Wade day danañu ko nangu danañ doon candidat de waaye itam ñu taxawal fi nag ab kuréel di ab autorité indépendante bu moom boppam lool ngir daal di organiser nag élection présidentielle yi nga xam ne kon jëlañu jëm loolay dëgg waaye itam fichier électoral bi day na ko ñëpp jot loi parrainage bi Macky Sall daal di cay génn waaye carte électeur yi tamit day ñu daal di koy jox nag seeni boro ñi nga xam ne nag maanaam dañ leen ci kaso bi te dara waralu ko lu dul wàllu politique di ay prisonnier politique day waaw dañ leen a war a génne loolu ah, doon wax ne ñun mënuñoo passé place de l'indépendance waaw waaye joomi na démb de barke Rasulaay de parce bëggoon te marche ba yëpp la am nañ lu weesu suñu njort laa la wax suñu objectif atteindre nañu ko li ñu bëggoon mooy wax adduna bi dégguñu taskatu xabaar yi nekk kon ci monde entier tamit daal di jël kon suñu wax loolee am na Habib Sy yamu ca ndax waa ji nee na Macky Sall ci boppam kon ab criminel la ay laa illallah wax day rafet waay jiitu réew ma ne criminel la Macky du jàkkaarloo ak Khalifa Sall ci élection présidentielle ñu ne mu jël ko daal ci kaso ñu mu dàqe ko kon ci mairie bu Ndakaaru Ndiaye Ndiaye Diop waa lii luy ndeem Macky Sall laa ne mën naa jël baaka daal di la koy dappus daal di la jam ci li mu tegul vingt Cheikh Bamba Dieye ne tax nag ba askan wi tey dañoo war a jug sénégalais yi daal di xeex la résistance directeur fa ne en tout cas Idrissa Seck ak maître Madické Niang Mamadou Ndoye LDD day waaw nee na Macky Sall day li daaneel Abdou Diouf mi ne ak Abdoulaye Wade waaw yeewu ko de loolu taxul mu yeewu de teréewul benn leçon ci Abdoulaye Wade ak Abdou Diouf gi leen daaneel Macky Sall fi nekk nii ci ay transhumance photo ñu takk ñooñu dee la yaakaar jële door seen ci la ko tijjee ci boppam ko nanoo iñaan moo soxor rek waaye wi day yàlla dana leen may ndam de Habib Sy ne askan wi ci boppam day ñoo war a xam ne Macky mi la jaaykatu doole la dictateur la enquête yéene kaay ne moo taxit caxa-caxatee de dóor leen kon ca biir ba daay da la bëri la opposition bi ah. day jàpp Dakar Times ne Macky Sall daal lu tolloo juróom benn ci ay candidat la dugal ci biir kaso eh, a may mun a bul so lii kay raw na sax wàllum dictature wal fajri ne opposition bi day waaw mujj nañoo fipp démb de dañuy bëgg a dee ku bëgg a dee weex de ma sax boog sobi opposition bi day waaw ñu leen di duma ci Ndakaaru Njaay Njaay Jóob gi lée ca jamono joojee Macky Sall day ma nga bekkee ca Chine eh Le moo tax opposition bi day pharmacie gi koon la yem de libération yéene de opposition bi day dañoo nduggi woon marché kon ca Sandaga askan wa ca boppam kon génn ñu dikkal leen de ñëw déedéet xoolal Mamadou Lamine Massaly daa daw ba mel ni Usain Bolt laa la wax <laughs> ma ne la immeuble Tafsir Mbuub la ni saax daw dugg ca biir Mamadou Lamine Diallo nga woon France maître ma dikke ñaa nga ndar ca ñaari raaka ya Serigne Mansour Sy Djamil ma nga woon ca biir otom wóorul prudence Abdoulaye Seck di doomu Idrissa Seck day nee na sama papa yëgul woon manifestation bi yaa jum wala maa jum Youssou Ndour day nee na Macky Sall lay pare eh, ne Omar Faye leeral nag fi mu nekk nii fan la jógtee taskari taskatu xabaar yi maison de presse ci boppam laa lay wax lay démantelé bi la moo nekk ci ginnaaw Mamadou Ibra Kane mi ak Alassane Samba Diop maar day taal maar day taal maa la wax lii de dama ki nag mi ay tànk buggaan gay dani mi la ak groupe Futurs Médias ak groupe Walfadjri mooy boo ñu moytu buur de Omar Faye xam nga fan lañ jëma ca wàllu ci kaw Abdoulaye Sylla mi la ak Dame Diallo box bobu li ne waaw akaam day nee nañu nañ leen atte da ngay grève de la faim attu yàlla kon ginnaaw bañ leen tegee loxo yéene kaay si dina mi ñes ka ne bugaan jay dali day waa sénéra waaw nee nañ ko wàllu parrainage gi bàyyi sa télé bi ak sa rajo bi ngay jëfandikoo <laughs> man de leen na ma ca jaaxal seen lancement parrainage su barki Dembo Njaay bii def ko direct ci RTS télé boo xam ne askan yëpp ko moom man de damay dégg waa APR ñu naan force reste à la loi la loi c'est la